yow soo xamul nag mën nga wax la neex kii suma rakk la Maodo maa ko yar fii papam moo ma yar dara xewul suñ diggante suma dëkkandoo la ama laa doon coowal sama rakk Maodo sànni ma xeer ma mer ngi nii ba nga fi nekkee nekk mas naa la saaga mas naa fi jël sa alal mas naa tooñ mas naa la tooñ mas benn yoon bii lu tax ma xeex yow sama rakk laa doon nga sànni ma xeer ku nekk nag mi ngi ibbi laa meloon di wax mais yow ak sa trahil bàmmeel xam nga ni tooñu ma la Maodo waxal dëgg rek tooñu ma la man jël naa jakarta jox leen benn parce que yëg naa leen dix ma maye neuf yëpp man tooñu ma la Maodo musuma la jaay doole musuma la saaga ndey te damay génne sama xaalis di leen ko jox dëgg wala du dëgg man sama rakk nga quoi gars yi ñooy wax lu ñu xamul mais yow ak Ama sama rakk ngeen. sénégalais booy bi suma raq la ama mi ngi ñawaat toog fii wax leen suma raq la tooñu ma si kenn si ñoom dañ sàcc suma jakarta ma ne dañ sàcc suma jakarta am naa droit wax ko suma benn xarit ne ma noo gars yi dañ la teg bët kii génnee kuur naka la tudd suma jarbaat bi dóor ko suma xarit bi gars yi ñaan ma ne ma bàyyil ma bàyyi dem géeja waaye ñëwaat ma toogaat fële mu ne ko boo duggee suñu kër naa ñàpp sa ndey ma ñëw di ko wax yaayam booy bi génneel ma ñuy xeex ci koñ bi kii ma xeer yéen loolu ngeen gis ne kii sama doom la kii lu mu magee sama doom bariwul kii du maag moom papam sama nijaay la mais moom moo ma tooñ quoi wasalaam te tëkkandoo yi maag booy ñu ngi nii nañ korite nekk suñu jàmm di ànd di xëy di gont wasalaam. baba. waaye sama papa. yow da ngay ñëw. teel ma nii teel kii kilifa gi la daf nday mi ngi papa daf nday nii papa yi papa yaa ngi nii doomi papa yaa ngi nii maa ngi suma papa ngi nii papa yi Amadou ngi nii yi nga xam sama meeru bañ mu jëlaale biir gàlle bi kaay bi feeñ naa feeñ naa feeñ naa <laughs> sëñ naa ko fi si laa. si man kii laa man kii laay si kii laay liggéeyal sama waa kër àndaloon na kii kii laay liggéeyal na yàlla kii laay liggéeyal baax na. kii laay lu ma si góobee gar ko. wax bu ñaaw bi ŋaññi bi mbajam mbajam kii lay topp gar kii la topp doome kii la topp voilà nañu woo. woo leen. ñi ngi nii nañu woo. woo leen. nañu woo. woo leen. daf ñoo war a woo. am na ku ñu woo. ku ñu Macky Sall la ñu woo. woo ngeen de. woo ngeen de gëj. woo madame madame. woo ngeen de. woo madame woo madame madame. amul faara la ñu woo. waaw bilaay am naa yëngu nii nag ba xam baax na. waaw waaw fii mbiri naa la de mais déjà ki fu mu dem rek fu mu dem jàmm la yem. fépp si laa ko am. jàmm la yem.